waaw ndeysaan kon yàgg mar quartier bi ñu nekk waaw xoyantaan a ngi nii nag ci Leewtoo TV fii ci biir Gambia kii ma war a bëreeg bàyyi ma ñoon fii ci Gambia champion bi maa ngi lay bëgg. ça va alhamdulilah maa ngi am jàmm. sant yàlla wér wér wér. naka forme bi. Ah, sant rek sant ah. rek. Mhm. fii mooy fan. Kunkujang. Kunkujang. Kunkujang. Kunkujang. Kunku Jang dëkk. waaw fi laa ok yaa ngi relax de. Ah, mel ni ah yàgg ñu ngi ci Leewtoo TV. xoyantaan a ngi noonu. champion ba mag a mag bi. mais naka dëkk bi nag. dëkk bi mu ngi neex de. man de neex na ci man wax dëgg mais xoyantaan coow li bëri na Gambie de sa digganteeg bàyyi <laughs> ma ñu. waaw. maanaam bu ñu duggee ci kër gi ñu leeral. mosuma dugg ci lu yomb. Hmm. lu amul coow mosuma ci dugg dugg day am coow. te lii coow lay jeexee tamit. làmb lu ma dugg mu am coow. waaw ga day ànd ak coow di defar rek. Hmm. bu coow li ñëwee bu ñëwee ñu defar ko beneen coow bu ñëwee ñu defar ko beneen coow bu ñëwee ba làmb ji jeex rek parce que bàyyi ma doon ñëw ci guddi gi. gars yi gis ngeen xoyaa mu ngi nii toog. waaw ataaya bi kay damay naan ataaya de man bismillah ñaanal yow itam waaw waaw ñam sa morom ñam àddina potu ndaa la naan jox sa moroom yàgg maar xuy yaa ngi toog nii sa kër toog sa mbedd toog kunku jàng relax. waaw alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm axlu làmb yépp di leen bëggee bu baax waaw maa ngi kunku jàng ci buntu kër Ndongo Cissé toog mi xam nga ñun moom fii mooy daara ji bu ñu jógee ko entraînement rek fii lañ koy wéer ba heure récupéré jot ñu dem récupéré bu entraînement jotee ñu demaat. mais xuyantaan kan mooy xuyantaan. ku naq de xam. Hmm. wax ñu dara ci loolu xamal ñu dara ci sa bopp kon. xam wax sa bopp day day xaw a day xaw a day waar. kuy xuyantaan ci làmb. waaw xuyantaan benn mbër la rek bu ndaw nag bu cuune ci làmb di def ay ay tiktokam rek waaw waaye kuy xoyantaan ci làmb dëgg-dëgg moom mënu ko wax boppam. Cuune dina nekk roi des arènes u Gambie. Baam Ndiol mu ne daa yomb di roi des arènes Gambie moom daa yomb. bala ñoo ñëw ci ñoon sa digganteeg moom ci mbay baax la wax am mais dégg naa xoyantaan nekkoon na dakaar wala Sénégal jaar na écurie Fass jaar na école de Balla Gaye loolu da nga koy dëggal wala ak yan année la woon. waaw loolu xam nga du ma fi ma ko waxee yëpp mm, ragaluma ci woon li may wax ndax fi ma ko waxee yëpp xam naa ne dana wër a àdduna te li may wax nii yu bëri tey dafa wër fii ñu nekk Gambia parce que Balla Gaye ñëw na fii gisante dañ man ak moom donc bi ma def biñ koy njëkkat bi gis sax gars yi bëri dañ dañ ma doon puus ndax xam nga ne man Babs production. Babacar Seck Babacar Seck sama doomu nijaay la moom ma yoroon. sa Colobane. sa Colobane. Babs VIP. Babs VIP magasin laa nekkoon. magasin waaw foofu laa nekkoon after ma jógee ko magasin dem Sandaga en face Omar Gadiaga kantin Omar Gadiaga sa kaset ya. kaset carré. jàkkaarleeg place bi jàkkaarleeg Omar Gadiaga. nga xam kantin Omar Gadiaga. yaax hmm, <laughs> na yow kay mi ngi koy wax Sandaga. <laughs> waaw ma jógee ko école Lille Balla Gaye fekk maa ngi dëkkoon xaw na jege Géejawaay ma ñëw Colobane mu ñëw Colobane nag pour may jógee ko wàccee Sandaga ñëw Colobane paraat son bagage yi dem Géejawaay entraînement day métti. Babsu mu ne léegi est-ce que duñ ko lijjanti fii Fass nga xam ne boobu maa ngi dëkk Colobane damay jéggi monument bi rek dem. dem Fass dem Fass entraîné. ban école ci Fass la woon. Euh, école Fass Fass ah, waaye. Mangé waaw Mangé. école Mangé nekkoon nag dañ génne woon Mangé mujj waaw ñëw zone bi waaw. Mhm. ok mais jamono jooju jot nga bëree arène Sénégal. non bëreewu ma arène Sénégal wax dëgg yàlla. bi nga nekkee école it Balla Gaye yàgg Balla Gaye daan ngeen contact nii laalante. <laughs> ndax laalante comme. comme bëree nii quoi contact. ah waaw ah mbër moom loo tuuti tuuti boo nekkee ci école da na laa daan ci bëre wala nga daan ko ci bëre. ma ci bëree lu daan na ma ci bëree daan naa ko ci bëree lu dul man dama la loo ma ne. man su ma nekkee entraînement contact maay mbër mi fi gën a cuune. contact waaw ah, parce que damay jéem lu ma mënut. damay jéem loo mënut. waaw loolu ko def. damay jéem lu ma mënut école bu ma nekk maa fay gën a cuune. jéem loo mënut kay ci bëgg a arrivé la bokk. waaw ndax damay jéem lu ma. boo ko tegee ci yoon. bu ma taxawee dëgg suma bopp da nga xam ne kii ku naqadee bëreel la ku naqadee daan la. phase bi ñu fa nekkee tamit Gris Bordeaux ak ñoom Papa Sow. <laughs> Gris moom dëgg la li ñu daan tombé phase Gris daanaka man nekk naa phase a benn yoon lañ mos a contact ndax xaw ñaari yoon ñoom Papa Sow ñoom laa doon miin ak forsa Tapha Gueye bi muy préparé combat ma Mbaye Gueye senior. combat ma gi euh, Eumeu bi yàqoon. Ah, ba doomu Doudou Ndiaye Rose ba noonu man ak Mbaye Gueye senior lañ doon jël programme. pour ñu war a entraîner ak Tafa Gueye xanaa école bi duñ nekk noonu ñi may war a tànn man ak Mbaye Gueye Senior pour ñu war a entraîner ak Tafa Gueye. waaw te ma kon amoon nañ ci yow yaakaar. de dama laa ba noonu ma ma commencé nag di waxtaan ak moom. ma ko wan bi ma jaayee ci école bi mu ne ma ah, booy Saalum Saalum bi mu <laughs> ne ma ne ko waaw xam nga ñoom boo ñu ngi a wax Saalum 2. li ma nekkee ci biir école bi nag ñi ma doon wax lak sukul lak sukul boobu lagros moom ko tuddee woon Fallou parce que damaa amoon benn fin boo xayma bu la ca xasee yegg mu ko lak sukul. boobu moo doon ban fin. ah loolu làmb la di loolu du lu ñuy wax. loolu da nga koy nëbbu. <laughs> xoolee ngi nëbbu de. nëbbu ma ko sa yaa jaar jaar ci Dakar. Ah, ah fu ma jaar. pour gars yi xam ni kat kii daal liggéey carrière fu ñu may leeralalee sax ci Dakar. Hmm. waaw parce que Dakar moom lu ma faa xam daa bëri genn wet gi ma xam daa bëri hmm. sama image kenn du ko teg ndakaaru ñu lay laaj kii kan la déedéet. kon tey su ma la déggee tey yaa ngi waa ndakaaru tey Modou Lo mooy roi des arènes ndakaaru wala bu Sénégal yow yaay roi des arènes gam xam nga làmb tey bu ñuy seetaan euh, làmb da ngeen ndakaar wala Sénégal làmb yemul foofu xam nga dañoo am mooy roi des arènes adduna bi parce que làmb bu xasee bu ñu ne Modou Lo Eumeu Sène adduna bi yëpp kenn dootul toog benn place te dul da ngay seetaan programme làmb bi ba jeex. soo ko amee ci télé da nga ko seetaan boo ko amul foo man a aw ba seetaan ko rek da nga ko seetaan kon da ngay gis ne làmb du Sénégal rek la la occupé yeneen réew yi mu ngi leen di yàqal eh, kii kon da ngay wax ne Modou Lo mooy roi ñëpp. kon mooy sa roi yow Modou Lo. waaw ah, mooy suma roi waaw. xalaat nga dindi ko. Ah, comme. maanaam nga jaamarloo ak moom. bëri ak moom. Ah. ah yow de man dama laa faawoon waaye dama lay bëgg a ñàkk fan. lu tax teg ma continuer fan. dama la tekkee ngemb ci làmb bëgguma bëree Modou xanaa man tekkiwu ma dara.

Assane yow fi mu bëgg a jël man dama dem danga may bëgg a dem sax sàkkal ma noonu ci Gambia ci fan si Mourlo yi. non non non noonu que gars yi mën nañu dem wax fi loo xam ne. fan si Mourlo yi mais mbër ñëw fii support bàyyi ma. Ah, déedéet eh, si benn doomu Gambia rëcc ma di support keneen. Ah. waaw te mu xuusee foofu am na ñoo xam ne dañ dee ci Mourlo ba ëpp àpp dañuy wax naan koy naan fii la toog di laaj suñu mi. Mm. waaw fii la toog di laaj suñu mbër mi nañ dem supporter Baye Mandione. te loolu ngay bañ. loolu laay bañ. waaw Modou daa bëri supporter macha allah. na ko de waaye nag wax ko mu fay naar bu xorom. mais mais dégg naa mos nga fay laaj am seen. waaw mu ne Modou Lo mu fay naar bu dafa jàpp ci ko da nga jàpp ci ah dafa ne na fay naar bu xoromam si. kon yow da nga koo jàppale ci combat am ak Eumeu Sène. Modou daal na fay naar bi koromam si ak estafam man loolu laa wax. xuy wax day leer. ak ñoom jame <laughs> ak ñoom jame yëpp <laughs> na fuddu su ma yoon new ci na fuddu jame yi ngay nii waaw. Ah, parce que non loolu dama ci dama ci dama ciy dem parce que non dama eh xuy li nga wax dafa doy waar nga ni Modou Lo ak estafam nañ fay naar bi xoromam ndax da nga koo jàppaloon ci gomam Eumeu Sène. waaw noo ko jàppale. bëri na. ci contact wala. non contrat moom mënuma ko si jàppale ndax jegewuma ko pour jàppale ko si contrat. ci noo ko kon ci mystique nga ko jàppale. non jàppale naa ko daal si gàttal. man de gis naa ay paakere ca lambu ja ñoo xam ne paa bi ne Gambie la jóge xaw ma nan Balde déggul sax wolof man maa ko filmé mu ne la jóge. ah ay paa ki gune kañ. dafa nekk bëri na di. kon xëy da cee dugali bagage nii. Ah, dugaluma ko samay nit ko ci dugal. day wàcc dem yoonam ca butéel ba la jëm léegi xam nga lu ma lay laajam léegi nag mu loo fay naar bi xoromam yow ki nga yoroon xorom mooy Baye Mandione Baam Ndiol moom danaa ko fay xorom bu soobee yàlla. di ko fay xorom. Baam Ndiol sax boo koy seet moo ma yoral xorom. nu mu la yoral xorom. dama kaa defal tiraanga mu yàq. moo ko defalee tiraanga. dañoo invité samay nawle yëpp. ci tel ci rajo. France fa jaar jàll. leket jaar fa jàll. te amul benn biriw. Mm-hmm. man maam kon combat ak Baam Ndiol invité ko pour mu ñëw ma dalal ko ci rajo bi àdduna Gambie yëpp xam ko. Mm-hmm. nit ñëpp xam ko. mu ñëw ñàkkee ma ngor ñàkkee ma teggin ba programme bi yàqu. lu mu lu mu la def lan la def. ah man def lu ma def moom. li ma def ci wax la ak jëf la parce que man dama ñëw euh, studio bi dafa xat ma ne suma booy dem leen toog fële bu leen dugg booy dañ tam toog ñoom foo lañ léegi moom mu ànd ak ay booyam mu ñëw ak gars yëpp ñu dugg biñ demee ma ñoom nit lañ dañuy nuyoo dañ war a nuyoo nga da nga war a bàyyi pour ñu ñëw nuyu nit ñi saafante yooyu pour man day génn léegi nag afta bi mu demee bo ñëw toog nag baa ma ñoon toog jam si toog suñu diggante booy bi ñëw def nii fireeku mais ni ko xam ne da nekk ci euh, garde wala. ban booy xaw ma. rakam bi. waaw léegi nag xaw ma ma teen ko nii teenaat ko na ko booy mu naa ma ne ko may ñi. ah yow a may ñu. waaw. est-ce yaa moom rajo ba. non moom ma rajo ba dama moom programme bi. wala da ngeen koo bokk. bokkuñ ko man su ma neexoon Jamaïcain du fa dugg. Uh-huh. waaw pour na na leer àdduna yëpp man. lu tax lu tax du fa dugg lu tax Jamaïcain tëgg làmb ji. déedéet du programme jam de suma bos la. Hmm. géej gi sax bu ma neexoon duñ fa tasee. Hmm. waaw suma bos la. du suma boos. xam nga fekkoon Jamaïcain moo invité. moom moom programme bi. Hmm. waaye dañ ne xoolal léegi lañ defal dimanche bii. tey dañuy defal ba dañuy defal. France lañ defar dimanche bii dimanche bii ñëw xoyantaan lañ koy defal spécial xoyantaan. xoyantaan ku ci dugg xoyantaan moo la siy dugal. nga woo ci Baye Mandione. nuyoo nuyuwoo ko ba pare di ko fu jéem a gën a rajo moo tax mu déclenché ci sa kaw. non loolu dalewul foofu xam nga lii problème bi mooy. Baye Mandione man damaa nuyu axlu làmb yëpp. nuyu kilifa nekk si réew mi yëpp. nuyu képp kuy bëggee làmb nuyu ñu toog ci plateau bi yëpp. xam nga tey ma naan nuyu naa kii nuyu ki kii turam kii turam xam nga loolu dafa maa dafa maa distop. ma ne sa sa sa adversaire lay daje ngeen ci rajo bi invité nga ko nuyu ko rek. su ma ne maa ngi ñu nekk ci plateau bi yëpp kon nuyu naa ko su ma ne maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp nuyu naa ko wala da cee ba wala moom du nit. xëy na bëggoon nga dama dama doon wax tuuti ma ne. bu fekkee dañ lay yar nuyu du bàyyi foos. bàyyi foos jooju nag moo indi problème bi dégg naa ne parce que ne da ko ne bàyyi foos te bàyyi foos mooy dugal sa bàyyi ci foos bi loolu dana wax. non am nga àdduna moom lu ñëw rek dafa war a am débat am nga borom xam-xam yi dañoo ñor loolu lu ñu toggaat la xam nga toggaat. comme nan. maanaam deferaat. kan moo ko toog. waaw xam nga Baye Mandione moom xamul dara waaye am na ñu wër Baye Mandione ñu xam dara tuuti. ah kon ñooñu ñoo ko wax. mu nag fi mu toll nii dañoo bëri. comme ñan ak ñan. Eh, bi mu ngi ci. Ah, promoteur bi ci ñi ko wër la. waaw non promoteur moom yoonam ne wu ci. promoteur bi mu ngi ci. xoy nag yow itam bàyyil promoteur bi daa tëgg làmb rek. waaw xam nga dafa tëgg làmb waaye tey man na gis loo xam ne man na ko yàqal wala mu yàq bisam. tey kon mu ngi mel ne moo ñu wër ñun ñëpp bu duur moom bàyyi ma njoone la ñun ñëpp daf ñu wër man mën naa def sax robis mu ne ma xoyantaan kaay mu ñëw mu ne ma da nga fii da nga fi loo xam ne du du nii léegi dama bëgg nga wax benn affaire nangam ak nangam pour ñu pousse xam nga nit ñi moom nit ñi dañuy commentaire lu neex ba fàtte lu naqari xam nga lool kon da ngaa jàpp la ñuy nekk léegi euh, groupe boo dem. waxi Baye Mandione bi la ñuy déglu. Baye Foss ji. Baye Foss ji. kon da ko wax ne ko jubbantil wax ji. ah sàmm laa de waxuma jamaïcain de. ah da nga ne promoteur waa ci ginnaaw bi. promoteur bi moom moom. ci lañ bokk. Hmm? jamaïcain mbaa bokkuñu ci. non yéen moom borom baa ngeen Lamine moom borom baa Lamine moom gis naa ko muy pousse ba. Ah, ñu xeex la doon bañ. puus baa la doon waaye <laughs> dama gis ñu puus ko mu daanu ci kaw suuf kii bële. xeexu ponkol yoon doon mën a sama taxaw nii. gars yi nag xam nga lii problème bi. mooy mooy barki alxuraani kërim doonuñ xeex. ndax astafurlaa ndax man du ma xeex xanaa bàyyi ma doon ma te man gëm naa ne ci rajo mi bàyyi ma doon mu dóor li programme bi mënatul dem man bañ naa mu am problème. damaa génn dem ñibbi génn dem ñibbi moom moo indi coow nag gars yi ñu ma dem baa ma ñëw mu ci suuf su ma demee daf maa songu xeex nangam nangam waaye dama doon dox romb ko naa la gëjal ci alquran ba ak kërim ne baa ma mu dal suma kaw. ah oui dañ doon seetaan booba dañ doon seetaan télé ma doon bàyyi ma dox ndànk romb baa ma ñëw dem ñibbi. mais léegi sa digganteeg ñoom bàyyi ma ñëw bëreekat la xeexkat la am na fit te it nag actuellement ci li mu wax na ne mu la gën a pare. dof la def daal li ngay wax jàmbur bi yow. barke Alxuraan daa dof wérul dof bi ñëw di liggéey xaalis ni di bëri di da. xaalis parce que bu mënoon a liggéey xaalis ni muy def du ko def. du liggéeykatu xaalis daa dof xam nga lu ma lay wax loolu. waaw mooy gis nga euh, gune lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti lim moom jox ko jël li nga moom koo joxul cër ku ne da ngaa dof. yow laa joxul cër. Gambien la joxul cër bu ma wax danaa jox cër njoon balaa nga xam ne sa joxul kenn cër sax tey. non xool leen euh, euh, bi ñu ko jox. est que bëggoo ko boole Gambien yow tamit. sponsor bi yow loolu ñeme na ko def Sénégal toog ñu ñu ñu jël bëjjën bi di bënn euh, sponsor. est-ce que tubay jee xatoon xaar ko. man su ma jotuma dama kaa woo. fond bi nii jotuma manuma fecc sax wàcc sax manuma ko dama ko woo nga di ko bënn image di ko génne man nga ne ko nii xaar ko yow ñeme nga ko def Sénégal ni da ngay respecté ñi ban sponsor moo ñëw ñemee ñëw Sénégal nga téye sa lii xar ko bu nit ñi image yëpp bëgg génne loolu respect la. doy na waar dama leen di laaj rek yéen yéen ngi liggéey ci làmb yéen Sénégal ngeen yéen a ngi liggéey ci làmb loolu ñun ñeme na ko. yéeme na de mu ngi noonu de. Hmm? mu ngi noonu de. du respect da ngay respecté sa bopp ba pare d' abord respecté ak nit ñi. li ñi lay seetaan. gis nga loolu tey bu fekkoon ne mbub bi ko sax mënoon nu jël mbub bi rek mu takk ko nii mu wàcc ci suuf sponsor bi dafay génn waaye dafa am image boo xam ne dafa ñaaw ci nga xar mbub mi def lii waxuñ nga jël béjjén ba naat tubay bi. rafetul daal te bi ñu koy bënn da nga dem laaxatu sax bënn ko sax. est-ce que musique taxu ko est-ce que xam nga ba tey euh, euh, yéen yéenay dofloo mbër mu dof yéen a ko dofloo. déedéet waaye xuy. non non man rek. ku dof ci làmb ku ne mbër mi daa dof yéen la. lu tax xam nga lu tax mooy. sunu bopp. li ma mënul d'accord mooy. ñun mënul dof dof ba dof waral. nga wëlbatiku naan ko est-ce que lii du musique loolu musique la Lamine. <laughs> ah. bu bés baa mu dof la. ranki Lamine man damaa sob te Lamine ëpp mu fil yombul baa ma ñoon na xam loolu. bu bëgg a bëree su bëgg a bëree na bëree su bëgg xeex na xeex. si bugg a def leneen lu muy def na ko def waaye buntu bi mu ko awee baaxul hmm. ba mu yoon mënuma yëngal lu den ni tarfatal xay ni ci suma xel mi mënu ci dox benn yoon benn yoon. kon kon tiitalu la. su ma sago it mënu ko hmm. amul maa xaamam boobu. seen combat mën na am dóor mu daanu. waaw làmb la parce que dañ ne bëri dóor hmm. waaw lu ne mën na ci am. am na loo moytu ci bàyyi. bàyyi mu njoon pour bool bi sifflé. déedéet xanaa moytu mu daan ma. waaw loolu ka amul lu am motif lu ma war a motif Baam Ndione. léegi dañuy jeexal xoyantaan ñaata ñaata ñaata combat la bëre Gambie ci lutte avec frappe. lutte avec frappe man war naa mën na nekk neuf yaakaar naa. ñaata victoire. non amaguma defet nag loolu yàlla dogal. loolu am na solo. te dégg naa bëri nga ma pat tamit tournoi séeréer eh, yi. maanaam su ma juumul daal fii lu mu dee gàtt gàtt bu ma fi takkee nga léegi war na def fukki at ak nangam. waaw te am na jamono boo xam ne amul benn weer bu mu dul bëree lu mat juróomi yoon wala juróom benn yoon ci fii waaw làmb bu nekkoon fii samedi ak dimanche bu jot damay bëree làmb tournoi waaw yàlla dogal na yàlla suturaal nañu nag dégg guñ fi muñal du maneel nag yàlla mooy jàppale parce que ah, kenn manu xalaatoo fee dégg muñal sa diggante ak Baye Mandione dugguma ko de yàlla de lu dara tawu ko waaye ñaanuma ko yàlla sunu borom taxaw te doxeewuma ko it nag te maa ngi ñaan yàlla daal mu suturaal ma may ma ndam. ban la looy mujj wax sa supporters yi ak ñi lay suivre ci Leewtoo TV ak promoteur bi ak tey sax ñun ñi ànd ñëpp ah, parce que Lamine nga fi toog bu Lutte TV ak Papa Ndiaye ak suñu père ñu koy nuyu di ko ziar yàgg maar ci caméra bi ak sama waa jële Moussa faal ci montage bi looy looy tàggoo. waaw di leen gërëm di leen sant rek. Euh, di leen wax kenn ku nekk maa ngi lay wax fa nga jógee ak fa nga jëm ak li nga bëgg sa carrière xam yal na yàlla defal la ko parce que kenn ku ci nekk tey bu ngeen sañoon. ku ne yaay doxal si fi bopp ñun ñëpp di liggéey kenn ku ne bu ñu sañoon dañuy dañuy am ñu ñu ñu ñu ñoo xam ne ñoo leen ñoo leen di commandé euh, mu nekk yokkute ci li ngay liggéey kenn ku joxe côté ba nga nekkee di gërëmaat waa axlu làmb ndax lii yëpp bu doole ji am rek làmb la di gërëmaat promoteur bi euh, jamaïcain bu baax. waaye fan yi moom dañoo xaw am problème. yéen nag waru ngeen am problème. dañoo xaw a am problème di sant yàlla bu wér di gërëm ndongo Cissé bu baax. di gërëm kunku jàng yëpp di gërëm sama booy ngay bokkat di toog di naan ataaya booy yëpp. te da ngeen fekk driver yi dem liggéey sëfoor ñëpp dem nañ waaw bu ngeen ni ko woon fii day gën a bëri mbooloo. di gërëm sama driver mu ngi ne Sidia. kële rek laa bëgg a jox sax baa mi yoon pour mu bëreeg moom. waaw di gërëm Jibel Touré ñoom Lamine Damfa

waaw dama mos a dégg nag am na ku may tuwaaj lii lii laal lii na doy ah. <laughs> rek waa kon gars ah ñu kunku jang si Gambia ñëwoon tey seqoon ak xoyantaan waxtaan mais gis ngeen numéro bii BJL la ah, loolu la ko Gambien yi waxee mooy Banjul gis ngeen taxi bi kon di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm mais nag mention spéciale soppey Babacar yi nekk fii ci Gambia parce que gis nañ keroog bi ñu demee si place bi vraiment teeru bi ak jàpp bi te ñun dafa guñu dara lu tax loolu war a mën a am xanaa kay ñoom ñoo baax kon mention spéciale. tous les Gambiens et les Gambiennes mais Xadijatu Sow mu waat xoos yow kenn du la fàtte maa ngi lay bigee bu baax a baax a baax nga ne lay baax na di wax jamay kee nag ne ko loo gën a jàpp Xadijatu Sow rek jam doyul olof a ko wax ku la nekkal ci naaj wi donc ko war a nekkal ci kër gi waaye ku la nekkal ci kër gi nekkal ko ci naaj wi Père Alsane Diallo massion spéciale Fall Moussa kenn du moom yàgg maar taal bi Cheikh Béthio Serigne Saliou kenn du moom waaye mention spéciale à Thialis Faye suñu DG ak Abdourahmane Diaw suñu DCA di nuyu